damay jëkk euh, ziyaar kilifa dëkk bi sëñ Bas di sama xarit di sama wëlëre toog toog toog toogal fi sëñ maam Cerno yàlla na ko yàgg yàlla na fi yàgg lool te bépp naal boo xam ne ña jiitu amoon nan ko sëñ Abbas Baye Cheikh Khady sëñ Abdou Khoudous sëñ Modou Awa Balla ñoom ñëpp mu matal ko man daaru sama dëkk la sëñ Abdou yàllaa defoon mu jël ma def ma doom hmm. bëri na ay jamono yoo xam ni su may màggali damay jëkk jaar si moom hmm. nekk ba moo màggali ñu ànd jiitle hmm. mu dem ba Touba këram gi sa Touba la may ñaanale sëñ Bass Abdou Khoudo soo ko waxoon léegi mu leeral la loolu jàmbaar ji fi jóge nag képp koo xam ni lislaam ñor na la képp koo xam ni sëñ Touba ñor na la tey xam nga ni yoon wi ñàkk na ku rëy moom kat nit ñi dañ ko bëggoon dañ ko soppoon dañ ko wóolu woon dañ ko gëmoon ndax melokaanam waaye nag melokaan boobu si sëñ Abdou Khoudous la koy jógee sëñ Abdou Khoudous soo ko daan gis rek nga xam ni kii ku ku dëddu àddina la la jubluwu lu dul boroomam sëñ Abdou Khoudous li moo nekk xalifa yépp doo dugg si biir néegam wala si biir salon ba gis fa loo xam ni day nuru loo xam dana dëppook jamono soo fa demee rekk danga nga fekk loo xam ni day woyof toll ci cër bi mu am lu tax booba bànneexu àddina bi ak li tax nit ñi di daw di ko wuti ñoru ko sëñ sëñ Abdourahmane mii la mel sëñ Abdou Khoudous daan yëkkati kàddoom ku ko dégg ki nekk daa xam ni jullit ak xan wax na daa xam ni boroom xam-xam wax na daa xam ni ku dëgg wax na daa xam ni ku ku jubóog boromam wax na noonu la sëñ Abdourahmane mel kon nag sëñ Abdourahmane mii l'islam bi yëpp a koy jooy waaye nag ñi mu doon liggéeyal di waajuram sëñ Abdou Khoudous di maamam sëñ maam Thierno Birahim ndaamal daaru di nag Cheikh Mat Bamba ñooñu am nañu fay yàlla nañu ko fayal yàlla sàmm ñim fi bàyyi lii nag moom mënul woon toog fenn di yónnee ndaw mm. ñëw rek wan suñu cofeel ak si sëñ Abdou Khoudous. si sëñ Abdou Rahman mi dem ak si njabootu sëñ Abdou Khoudous mu toog fii yëpp. nu ñëw wan leen suñu cofeel lii mooy sunu taxawaay. yàlla na nu ko yàlla fayal. yàlla na nu ko Cheikh Ahmad Bamba fayal. yàlla na ko maam Thierno Birahim fayal.